nga laaj plateau bi lu jógee fii ba fii. waaw yéen ñëpp hmm. lan moo tax respecté wu leen les dix fils sénégalais yi bokk parti socialiste. eh ben reformule la question parce que c'est non dama jàpp ni respecté wu leen leen. ah non non non Biriba non dinaa ko wane. tu ko démontrer fii. démontrer que. Ousmane Tanor Dieng dafa toog ci néeg fal boppam Ousmane Tanor Dieng dafa toog ci kër jékki-jékki ne maa fal. mais moo laaj may may gële waaw mais. mais moo laaj amul bu Sénégal. moo laaj. Abdoulaye bi jël laaj réew ñu ko gagné magul Ousmane Tanor de Sénégal foog mi ñu réew mi Ousmane Tanor di doomu réew mi dis gor dëkk ci dëkk bi bokk ci parti socialiste jiite parti bi en mille bi ngeen di wax nii Khalifa Sall mu ngeen di wax dafa changé nationalité ou nationalité française devant tous les Sénégalais. <laughs> non du lu may wax. dafa changé nationalité duguti nationalité française dindi compte am bis yóbbu ko BNP Paris Dakar mi pa BNP Paris mi may dégg na ko weddi. BNP Paribas. Paribas la koy lépp lépp compte am. daw ne day xarimat Ousmane Tall jël toog parti bi ànd ak ay gor mu metti trop ñu ñuy xoxatal dañu ñu menacé. di ñu di ñu di ñu. ci laa bokk. waaye man mii di wax yow politique tax ñu wàcce ma saa poste ba oto bureau Ablaye damaa wàcce bu ma xëy ci mbedd bi waaye ñër si ñu may dégg dégg wax li ma la ñun ñu ay doomu réew mi di ci gor boo ko xamante ne jeeg kan nga mus a dégg ci parti bi y compris Khalifa Sall mu ne d' ma li ngeen di wax nii ku la ko wax loo ne l'a pas a mm. kan ngeen mus dégg ci PS du de premier ba dernier militant. Mm. bu ne ñun d' accord ñu ci Ousmane Tanor Dieng nekk suñu secrétaire général ñu toog fii kenn mënu affecté moo ñu doy ni mu yore suñu parti doy ñu. Birima mais ñu may ma may ma ñu jiital ko maintenant. tu ne pas objectif non mais ma général du parti. même secrétaire général du parti. oui candidat c'est c'est mm-hmm. nga nekk secrétaire général parti ne veut pas immédiatement yaa war a nekk secrétaire yaa war a parti. Mm-hmm. le candidat du parti. parti bi koy tànn. Birima fondamentalement lan mooy problème problème leadership la Tanor Diallo lan la problème mu PS lan la Khalifa Sall ne ci biir parti bi. oui am ay ambition présidentielle. oui te amul fulla wala amul ngor wala amul dignité jàkkaarloog waa PS ne leen fii ñu jëm bëgg naa faa dem. loolu mooy problème bi. musu ko wax même rek. Ah musu maa dégg waaw musu non ñu wax ñu ko wax. Khalifa Sall n'a jamais déclaré sa candidature. et puis yéen leen ngeen ñu bëggal. yéen ñan yéen Sénégal yéen politologue yéen yéen a d'accord ni benn parti mootul ji réew mi ci Sénégal yéen ko wax. yéen a ni fii ku deful coalition moo toll tekk dara ci réew mi ñëpp a ko bokk d'accord ñun ñu bokk ci coalition boo xam ñu ngi gagné ngeen di bàyyi leen coalition mu dem fekk fañ leen di gagné ngeen bokk fa ñoo bañ. très bien. merci la ngeen bëgg merci merci yéen yéen ni coalition moo tax nga jël réew. merci mais ñun nag Sall ñu ànd ci coalition. merci Birima. tooyuñu waruñu. Birima regarde waxuñu lu mu deful ma weggale waxuñu lu mu deful. mais merci c'est bon mais ñi ngi ànd ak coalition. jërëjëf ba ñu ànd ak Macky Sall. Macky Sall mënul li mënoon tey faluwul. Birima ba ñu ànd ak Macky Sall Macky Sall faluwul. Birima bu ñu ànd woon ak moom du falu. Birima Macky Sall li amoon Sénégal amul amoon na ko falu ko il a fallu ñun ñu andi li am moom mën na ñu yor réew mi ñu gouverner ensemble maintenant nag dama bëgg wax leen non dama wax leen boo xamul politique da ngay téye sa lam Birima respecte les gens respecte moi ah.